tey li ñu fi indi mooy benn table ronde boo xam ne dafay dajale euh, acteurs yi engagé wu pour ratification mu nekk benn jumtukaay boo xam ne euh, protocole à la charte des droits de l'homme et des peuples mais bi nga xam ne dafa porté ci àq ak yelleefu euh, suñu mbokk yi nga xam ne dañu ànd ak waay mm-hmm. boobu parce que naam état du Sénégal xam na ne protocole boobu mu ngi exister parce que en 2021 ministère de la femme quand même réuniroon na acteurs yi les différents acteurs pour que ñu mën a wax ci protocole boobu xool naka la ñuy def yan yoon lañuy jaar ba état du Sénégal ratifié ko mais jusqu'à date ñu seetlu nañu que ne processus boobu euh, réussirul donc moo tax ñun ak suñu partenaire humanité inclusion <coughs> dans le cadre du projet Making It Work pour que kat ñu fexe booleendoo suñu doole pour kat fexe état du Sénégal mun a ratifier euh, protocole boobu parce que protocole boobu li li ki liy solo solom mooy que ne dafa ñëw gën a renforcer euh, ak ak yelleefu jigéen ñi euh, yi nga xam ne dañu ànd ak waaye laago yi naam yeneen instrument juridique yu demee ni ko protocole de Maputo ay CDF yooyu yëpp <clears throat> jëloon nañu en compte ak ak yelleefu femmes handicapées yi mais bii nag moom moo ñëw gën a jël en compte seen ay besoins seen ay spécificités